diko ko tay ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñuko dila ñaanal tam bu baax suñu borom doon la dëgëral ak mbolo ñu ko top sa ginaaw yépp ba lañu sori ci wax ji tuuti rek ñu fàttaliku rek tuuti kenn ci jambar yi nga ñoo occupé won att bi di serigne Ahmadou Ndiaye mam Bamba di ñaan borom bi dool yermane ci mom te yok ay leeram heure bi daaw yaakaar ñun ak mom ñoo bokkon jotaay bi ci coobare borom bi subhanahu wa taala mu wuté ko ren ñi nga fi wut yàlla na suñu borom dëgëral te wéral leen ba naal yi nga xam ne waajur yooyu naaloon nañ ko ba mu agsi sëñ Ahmadou ñu àggale ko te naal seen naali bopp te ànd ko njaboot gi yëpp soo dee bokk yi ñu may ñu ak dal rek ak teewlu ñu ñëw ci liggéey bi gannaaw bu nuyoo yi jàlle ak ziyaare yi te bisub tey bii di bis bu màgg ci ñun njabootu sëñ Massamba Oumy di bis bu kawe itam ndax bis la boo xam ne na ko sëriñ Tuubaa jàngalee woon ci xasidaam nga waxoon ne sab soppe bu fekkee ay xur wala ay montagne daa sa digg ak moom bu mu la tee xuus ci biir montagne yooyu wala xur yooyu ngi siyaare sab soppe loolu bokk na ci sababu tey jii ñu ñëw jàkkaarloog suñu soppe bi di Cheikh Mamadou Lamine di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ngir jotal ziar boobu noonu comme ni ñu ko Serigne Touba santaane ndax kat Serigne Touba mooy sunu yaakaar te yaakaar naa li muy wax njariñ rek moo cay tukkee comme ni ko sëñ Mor sànq ci bayit bi mu doon def léegi kon ñu ngi koy sant bu baax sëñ Mor moom itam di ñaanal kilifa gi ak mbooloo njaw gi topp ci ginnaaw bi yëpp su ko defee waxtaan tey dañ koy tënk ci ñetti tomb wala ñeent tomb bu njëkk bi dana jox sëñ Modou Fadio mu ñëw ak ñun ci fédération bi ak ay mébétam muy fédération Serigne Massamba mi ñaareel bi dana ñëw ci kaddu diaspora bi Serigne Moustapha Barane moo ko yëkkati ñetteel bi ñëw ci kàddu fédération bu senegal wala Afrique sëñ Xaarim Imam moo ko yëkkati moom muy président bi ñeenteel bi kaddu sëriñ bi lay doon kon lii lañ bëgg a waxtaanee ak yéen suñ kéemtalaay kattan ci li ñu kéemtalaay waxtu yu may. mbokki jullit yi mbokki taalibe نوي لين دي نوي بو باخ باخ تي دي لين زياره دي لين بال حق تي دي لين بال حق تي نيا الشيخ محمد المنتقى مباكي سون بروم ياغال كي في لول تي ويرال كو نون لين كي نيا سيغ ابو خادر جاي خليفه سين دار حسن سون بروم ياغال كو لول تي ويرال كو ديكو نيا رك شيخ محمد اللمين بار جاي خليفه سين مسامو امي سون بروم ياغال كو لول تي ويرال di ñaanal itam sëñ Ahmadou Ndiaye Mam Bamba suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ci barke Seex Xadim loolu jàll ñuy sant ak gërëm mbokki taalibe ci teewaay bu am solo bi nga xam ne ne teew na ci bis bu bii ñuy siyaare suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Lamine di ko ñaan suñu borom dëgëral ko te wayafal yan bi te àggale ko fu mu ko bëgg a àggale ba naal naali boppam ba e, àggal ko fa ko lu kawe ci njortam te ànd ko ak moom ak Seex Xaadim e, bu loolu jàllee ñuy sant rek mbooloo ci teewaay bi wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte lool ndax mbooloo mi wax dëgg yàlla ñëpp teew nañ képp koo xam ne ni yaakaar nga sëñ Mass Xamba Oumy rek e, bis bi bàyyi nga ko xel ba li nga doon def lépp bàyyi nga ko ngir teewee bis bii kon ñu ngi leen ci sant te di leen gërëm tànki dem yi ak dikk yi yëpp yàlla ko suñu borom def ay xéewal te bu mu bokk ci seen dund itam nag ñu ngi koy ñaan yàlla ko suñu borom def di fàttali suñu bopp di fàttali mbooloo mi rawatina ñi nga xam ne ñoom bokkal liggéey bi e, ci kër Serigne Massamba ñu war a góorgóorluwaat ci liggéeyu kër Serigne bi ci naal yi nga xam moom la fédération bi naal te bokk na ci naal yooyu e, bi ci jiitu rek muy. taxaw daayira bi muy daayira fédération Kër Serigne Massamba Oumy fépp foo xam ne noo ci bokkee ci Kër Serigne Massamba Oumy ñu ngi lay tàllal loxo di la soññi nga gën a fat fetliwaat sa loxo saay ci liggéey bi gën a euh, euh, jëndaat rosi carte yi itam nga fas yéene jënd at mu jot ngay jënd rosi bi di wane na la ma nekkoon tey laa ci gën a nekkaat teg yi itam nga ciy def sa kem kàttan lu mu ci digle ci wàllu biir réew mi ak ci wàllu bitim réew rawatina ci wàllu bitim réew nag ñi nga xam ne ni ñoo féete ci wàllu Espagne bi ñu ngi tàllal suñu loxo ci ñoom ci liggéey bi ci ndigal yi xam ne mooy ñëw ndax programme yi nga xam ne nii ne moom la ñuy amal ci kër gi muy màggal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma màggal 18 safar gàmmu ak euh, màggal Serigne Darou ak euh, màggal mars. ak yeneen digal yii ñëw muy com Kompantum ak euh, Darou Salaam bokki Barga yooyu yépp ci ndigal yi euh, ci euh, wërsëg bi ñuy laaj mbokki taalibe yi ci lañ koy jëlee kon nag loolu bokk na ci la nga bokk ci njaboot sëñ Massamba ni te loolu yi ñuy laaj doo ci joxe benn dërëm mën naa la bu ndigal loola motul ci yow la yow la commencé te bari waa ne ñoo xam ne ni ñi ngi tuddoo kër sëriñ Massamba Oumy na féete ca euh, euh, diwaanu Espagne waaye li ñuy laaj duñ ci dugal seen benn dërëm waaye ñi ngi ndokkeel nag ak gërëm ñi nga xam ne nii ne ñi ngi liggéey ñi ngi liggéey ci kër sëriñ Massa Mourou gi di ci joxe luñ luñ am ak luñ amul ndax am na ci ñoo xam ne di sas buñ yëkkati buñ bokk ci ña koy njëkk matal itam euh, danañ ko matal am na ci ñoo ñoo xam ne itam buñ matal itam danañ ci joxe dara waaye am na ci ñoo xam ne itam nag duñ ci joxe benn dërëm. loola nag maa ngi ñaan di dagaan sunu kilifa yi ñu leen ciy gën a soññiwaat di leen ci gën a ñaaxaat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mi di nuyu di ci bi Serigne Mountakha Bachir mi fi toog toogaayu rasul gudd fan gu ànd di ko ñaanal sëñ Abdul Xaadir mi ci bopp njaboot sëñ Dawru moom itam gudd fan lool gu ànd ak wér ak mbooleem njaboot sëñ Dawru gi ci ginnaaw gépp waaye itam di ko ñaanal suñ jëwriñ ji topp muy sëñ Mouhamadou Lamine Bara mi nga xamante bii ni moom lañuy ñuy xoole tey sëñ Massamba Oumy moom ay rakkam gudd fan lool gu ànd ak wér ba nga xamante bii ni naan yi nga xamante bii ni waaye juróom yi bàyyi na ko fi mu àggale ko ba def naali boppam ànd ko warkam yi jataay bi ku gis nii mu duggee ci jataay bi suñ xel war naa dal bu baax a baax ndax sëriñ bi dafa woon mboolem ñi nga xamante bii ne ay rakkam mu bokk sëñ ma sàmb umi commencé ñu mbokk rakkam yi sëñ daam xëri sëñ Ablaay xëri njabootuk sëñ mbay xëri njabootuk Cheikh Ibrahima Mbène sëñ ma sa sëñ Axma Ndiaye mi nga xamante bi moo fa jógee barki démb ñoom ñëpp mu woo leen ba ñëw mu ànd ak moom ñëw ci mbooloo mi ci taalibe yi loolu rek war naa dal xel war naa dal war naa dal xel su war nañoo dal xel war naa dal xel baax a baax kon loolu dafa rafet kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér te lépp loo xamante bii ne yéen na ko ci yoon wi rek mu yóbbu ko foo xamante bii ne kawe na te mu ànd ko mboolem taalibe yi bépp naal boo xamante bii ne naa loolu nañ ko fer yàlla na ko àggale ci barke Sëñ Tuubaa barke Sëñ Masamba mi ñun nag ñoo ngi yëkkati suñu ci diaspora bi di ko yëkkati itam ci sunu kilifa sunu mag Alaaji Bugul Njaay mi nga xamante bii ne moo jiite képp koo xamante bii ne dangaa nekk diaspora bi moo xam France nga nekk mbaa nga nekk Italie mbaa nga nekk Allemagne mbaa Angleterre fépp foofu mën a nekk rek ci biti réew te bokk ci njabootu sëñ Massamba Oumy sëñ Alaaji Bugul moom mooy sa jëwriñ ñoo ngi wax ci kàddoom ñi ngi wax itam ci kàddu suñu jëwriñ Alaaji Daba bu dee ci Espagne ku mel ne sëñ Massamba doo ak sëñ ak sëñ Modou Fadio mi doon wax léegi ñoo fa nekkal njabootu sëñ Massamba Oumy gi Euh, bu demee ci autorité itam ni ma ko waxee ku mel ne ëllëg moo fa nekk moo fay suñ jëwriñ ah ànd koog itam suñ mag yi taalibe yi nga xamante bii ne yàgg nañ ci kër gi ku ne sëñ Modou Fallou mii ak sëñ Dame Kopp man mi wax ak yéen ñoo fa yor liggéey bi sëñ Massamba bi waaye ñoo ngi sant mboolem ña nga fa nekk te ànd ak ñun liggéey bi xam naa di soññee rek ci ni ko Modou Fall yi waxee lu ci bari maanaam yi mën naa ne wax na ko du àgg ñu ci ñu ciy dellu ndax maanaam xëy na jataay bi ñu ko may ñuy ñaan daal képp koo xamante bi ni yaa ngi dégg suñu kàddu te nekk ci diaspora bi te bokk ci njaboot suñu masaan boobu bépp liggéey boo xamante bi ni sëriñ bi mi ngi koy soññee yow na nga jàpp ne yow liggéey boobu yow yaa ko war a def la ci jiitu nag mooy tooli àllarba yi tooli àllarba képp koo xamante bii ni ci kër sëñ bi nga bokk moo xam foo ci mën a bokkee sa toolu àllarba na nga koy bay ni nga ko daan bay képp koo xamante bii ni bokk nga ci nañ la ko sasi sas ba boo ko mënee moo xam lu ñu la ci mën a sas na nga ko fas yéene bay boo ko mënutam sa kemt laay kàttan nga def ndax kenn ku ne xam na ne kër gi ni mu nekkee woon mbooleem ñi nga xamante bii ne dëkke woon nañ ko Daaru Njaay sëñ Abdoulaye Khary kenn ku xam na toolu àllarba bu fekkoonte ne bët see bi képp koo xamante bii ne yaa nga ca dëkk ba buñ ko wootee bu soobee yàlla sa waa kër yëpp ngay fob yóbbu ca tool ba bala balaa kenn na suul benn doom da dañoo tool bay ji tool sëñ bu pare faneen fu waay dem nga nga doon faa dem te da koo boole fulla joo xamante bii ne noonu mu ko waxee képp koo xamante bii ne woote nañ tool sëriñ bi nga am kenn koo xam ne da nga koy seet ci sa kër di ko yóbbu beneen tool sëriñ bi dinaan la boo ñëwee na nga semp say néeg dooru dëkk ci dëkk ba kon nag sëriñ bi fonkoon tool àllarba boo xamante bii ne ñun ñi nga xamante bii ne nekkuñu ci dëkk bi nga xamante bii ne mën nañ bu sëñ bu wootee ñu dem bay tool ba nekk ci àll bi wax dëgg yàlla ngir yàlla li ñu sase ci tool sëñ bi muy àllarba moo xam nu mu mën a toll buñ ko waxee na nga ko yëkkati jox ko kay sa jëwriñ nga koy laaj nga joxe ko moo gën boo ko mënutam la nga ca man sa kemp kàttan nga def ndax itam na yaak sëñ bi laa yaakaar buñ ne sëñ bi joxe na ndigal nga ne gaay dañ ko def buñ nee tool ba nga ne gaay dañ ko def naxu kenn sëñ bi do sa bopp do ngay nax ndax sëñ bi moom lim wax lu wér la képp koo xam nga ko defal nga ko loo man mu defal loo mënul ku ko defal loo mënul mu defal la loolu jomb kon nañ góorgóorlu ci tool ba tool muy tool sëriñ bi la ñu dooliku mooy fédération bi nga xamante bii ne mooy doxal bépp activité buy am ci kër sëriñ bi muy lu mel ne màggal yi ma ci jaaraat ni ko Modou Fadji waxee muy màggal yeeg gàmm yeeg yëpp loo xamante bii ne xew na fi rek maanaam i fédération boobu moo koy dox fu mel ne Italie nag diaspora bi képp koo xamante bii ne diaspora bi ñaar fukki junni lañ leen boo xoolee mu war a nekk fukki junni ak ñett 65000 francs CFA képp koo xamante bi yaa ngi fii te joxe woo ko foofu itam bu la yàlla dogalee nga ñëw fii te nga bokk ci diaspora bi na nga joxe 65000 daañu la boole koo xamante bi ne boo ci àggee da nga ko mën a jox ku mel ne Mourou Bàcc xër mi keneen koo xamante bii ni mi ngi fii itam man nañ laa boole moom nga jox boo ko mën itam moo xam vingt cinq mille nga fay nga mën a joxe mbaa cinq mille mbaa loo ci mën a joxe nga joxe ko waaye nag bokk ci kër sëñ Massamba mu ñuy laaj nga ne ci kër gi laa bokk te laaj laajee doo joxe loolu moom wax dëgg yàlla dëllu xel mbaa Moussa Baram dëllu xel moom man daal li ma fas yéene moom sas buñ ci buñ ci sas woon naa ko bay waaye ñu gën a góorgóorlu ci fédération bi daal liñ ciy laaj ñu di ko joxe alarba ji liñ ciy laaj ñu di ko joxe bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحاب الزبر الدوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين bi ñu ngi نيو nuyu زيارة la ziyaare di la jox sa wàccuwaay bi la yàlla jox ak mboolem njabootu sëñ ak mboolem njabootu ak sëñ Daaru Xasan gi yëpp di bu baax ak kontaan ci jataay bi ndax ku ne xam ne jataay bi jataayub ziyaar la mooy jataay boo xam ne taalibey sëñ Masamba ummi yi ñoo dajale seeni haddiya ak seeni yéene ju sell ak seeni cant ki ngërëm ñëw fii ci kanamu sëñ Mouhamad Lamine Baara mi nga xam ne moo fi toog jataayub sëñ Bàcc Masamba ummi ngir ziyaare ko waaye leeral ko liggéey bi ni muy doxe waaye jottali ko ay cant ki ngërëm yoo xam ne bàyyikoo na bàyyikoo na ci mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk ci kër sëñ Massamba te bokk te nekk ci ay gox yi fasanti ko cant yi ak ngërëm yi yëpp ñu boole ko indi ko fii ngir jébbalaale ko boole ko ak seen i ak seeni i tuub ak seen njëggal ci sa diggante ak ñoom ci lépp loo xam ne wax nan ko te waxuwut wala ñu def ko a lépp loo xam ne gis nañ ne ay gàkk-gàkk la ci ndigal yi yépp ñu ngi koy tuub te di ko jéggalu te di xeeb lool mbooloom liñ fi indi ci addiya ak i ziyaara lépp ñu ngi koy xeeb te di ñaan nga ñaanal ñu waxtu yi déwén ñu mën a teewaat nii ànd aku kàttan aku wér ba lépp lu mu fi def benn bu ndikkee bu ëllëgee mu doon fukk ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala sëriñ bi xam naa kàdd yi ni ko mbokk yépp waxee jataay bii fédération sëñ Massamba Oumy mooy ki nga xam ne moo jiite jataay bi fédération boobu sëñ Xaadim Njaay imam nekk ca bopp ba ak sëñ Maam Cheikh Njaay ak sëñ Daam Say ak mboolem ñu leen di jàppale ci bànqaas yooyu yëpp ñu yor liggéey bi bokk koog mboolem njabootu sëñ Massamba ki nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi ak bitim réew daayira yëpp nag teew fii ci sa kanam daayira Tawfeex nekk fii ci tuubaa Daaru Njaay teew nan waa kër Baay Ñàng ba ca Baxdaat ñoom teew nan kër ñaan Jóob ñoom teew nan dongay laxasaay yi nekkoon ci daara ji ñépp ñoom it teew nan daayira Tindóodi Touba Tawféex ñoom it teew nan waa Caajaay ñoom it teew nan Dakar ñoom it teew nan mbuur ñoom it teew nan ngaanaado ñoom it teew nan pëyin ñoom it teew nan cëyin ñoom it teew nan mox-mox ñoom it teew nan daaru xudus jolof ñoom it teew nan France ñoom it teew nan itali ñoom it teew nan Espagne ñoom it teew nan Taif Mbàkke ñoom it teew nan daaru njaay ngay kasin bàcc ñoom it teew nañ Gàmbi ñoom it teew nañ Allemagne ñoom it teew nañ ñi ñëpp di ay daar yi fasanti yoo xam ne njabar sëñ Massamba mi ngi ña nga fa dajale seeni haddiya ak seeni ñaan ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba naa yim naanal sëñ bàcc Massamba bi mu àggale ko te ñu ànd ko ñun ñëpp waaye di tuuba ko jéggul ci lépp loo xam ne warut suñ diggante ak sëriñ bi loolu lépp ñu boole ko ci jataay bi tey kon lii mooy daayira yi nga xam ne ñoo teew fii ci jataay bi ngir jébbale seenu liggéey ci kanamu sëriñ bi kon nag li sëñ Mapenda daana léegi ci ay kàddoom mooy fédération sëñ Massamba mi bii moo lëkkale mboolem jabaru sëñ bàcc Massamba mi fu waay mën a ne ab daayira nga fa nang cay dox lu mooy ndigal dagg ci carte membre yi tey dox ci ndigal di joxe sas ya ñuy laaj ca daayira ba bu ko defee lépp loo xam ne ñu ngi koy mbébale sëñ Massamba ummi sa doole dem na ca sa xel mu rafet dem na ca sa wërsëg dem na ca sa xam-xam dem na ca te loolu mënta ñàkk ci doxin jataay bii li muy taaru taaru taaru am na loo xam ne moo ko gën a taaru mooy ku nekk fa nga nekk ngay bay sa waar nam ware loolu bu amee mooy li gënal sëriñ bi ndax suñ ma pend wax na ko léegi dimbali gi moom ak njariñ li sëriñ bi yore ba ñu koo jariñ munta nekk munta mun ñu cee jot mukk li fekk nekkuñu ci li nu war a ne ku ne ci li nga wara nek da nga raw aduna ak alakhirah loolu rek moy li am solo moy le seigne Mbay jaxata waxon li tax man ma jaaxal samay kem dama demul won bañi dem ma xey jitu len dañu juk ci ndjel man ma xey man di muñ ba galu ndigal ma ñew ma ba galu ndigal ñew ma war rombu len ku bëgg jitu rek da ngay nek ci ndigal sëriñ bi lim santante moy kep ko nga seigne Masamba umi fo meuna ne bitim rew moo xam fii ci senegal dëkk yi ñu tudd léegi ak ñu fasanti ko fu ci waay maa ne nañuy nañ la ñuy laaj na nga koy joxe te bañ di dégg waxi jamono laaj bi daa bëri foo ko dégg xamal na dawal seytaan ngi noonu seytaane mi ngi noonu boo dajee yi daa bëri koo ko dégg xamal na dawal seytaane ngi noonu te it nag nan xam ne suñu njëriñ àddina ak mi ngi fii ci kër sëñ mi Oumy sëñ Ibrahima mbenn yàlla ko yàlla dolli ngërëm ak leer dafa da daa wax lu bëree bëri nee na ëttu sëñ Masamba ummi bii dan daa ñëw di ko di ko di ko ziar ji fekk mu mu génn waaye bu dikkee li wax mooy bu leen ma gisee bu leen ma gis di ëtt bii borom def na fi loo xam ne boo dikkee fekku fi boo nekkee fii ci ëtt bi ñaan sa soxla suñu borom dana ko faj te loolu lu wér la ndax sañ bàcc ma Masamba mi da koo liggéey ci kër sëñ Daaru Asan muy liggéey bu wér a wér mooy ni ko sëñ Mor waxee léegi ci jataay sëñ bàcc day doom yi bàyyi sëñ Daaru Asan jaay léppam jébbal ko sëñ Asan Njaay ba sëñ Xasan Njaay gërëm ko ngërëm lu wér mu nekkoon loxol ndeyjooram di ko defal lu bëree bëri yónni na ko ay yoon yoon ci sëñ Touba sëñ maam Sayer Njaay jàng ñu bëri xam nañ ko ci Njaay wax na ne keroog ba muy ziyaar ji sëñ ne sëñ na sëñ Masamba moo jàpp ci loxoom yóbbu ko ba sëriñ bi ku miimoon sëriñ bi la waaye bu ma ko sëñ Daaru Asan daa yoon sëñ Touba lu ko sëñ bi wax yow de ku Asan Njaay wóolu nga ku sëñ Asan Njaay wóolu nga mu ko dëggu nag doonoon koo xam ne dara ëdd na te boo xoolee ci njabootam ngi gis ko xoolal sëñ daam ku mas gis ab image am xool sëñ Ablaay xool sëñ Mbay xool sëñ Ibra ba sëñ Ahmadou Ndiaye maam Bamba mi nga xam ne daa leeral lépp yàlla ko yàlla dolli ngërëm ak leer boo gisee seen jëmm yi rek da nga xam ne ñii day àdduna nekk ci ñoom sëriñ bi képp ba leen mas ñor seen lépp dañ koo jébbal sëñ Daaru Asan seen lépp dañ koo jébbal Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim kon kër sëñ Massamba Oumy gi ni ma ko daa waxee rek fii moom dara waru fee des ginnaaw lu ne mën na fee des ginnaaw nag ba mu des ndigalu sëriñ bi kon loolu mooy li am solo man damaa gëm li ma gëm mooy kër si Massamba mi bu kër si Darou Assane war a kër si Cheikh Mamadou Moustapha doon fecclu ñun kenn waruñoo dàq fecc murit amul lu dul ndigal rawatina nag gémawuñu fenn ci li sëriñ bi wax mooy toole àllarba yi di jëfe ndigal tey wattu tere loolu nag buñ ci kenn man ndax fii sëñ daam biñ fi nekkee xat musta dam te da ko garanté woon sëñ daam bi sëñ Massamba mi wàccee ab liggéey bi ñëwee ci moom ne ko mag ñi dajale ko te dajeeg moom ca Daaru Njaay ne ko sëñ daam ah sëñ bàcc kat ku mënoon a mocc la maanaam ku mënoon a lugg la ci wàllu tooke képp koo xam ne tooke mas naa dal bu la lee mu saafara sëñ daam ne de kenn dafa gaaral da ne xamuma la sëñ ma sàmbam man ak lu mënul waaye man siñ daam ne li léegi maa ngi fii Daaru Njaay jaan du fi matt kenn loolu ku mën a garanti képp ko mën a wax te loolu li tax ma wax ko mooy ñoom dañoo xamoon li doon ak li leen loolu nag bu la ci yàlla boolee ci ñu mel noonu da ngaa war a farluwaat bàyyiwaat sa xel bu baax a baax wax naa ko ci jataay ba jataay àll bi ji passé sëñ Massamba ummi ci boppam laa nit ñi dañ koo xamul dañ koo xamul waaye ci pësir ak ëllëri ba mu doon daw ci kër sëñ daal ak ci ndigalu sëriñ bi ma ne ñun ñii ak njabootam kenn wur ñoo gën a góor góorgóorlu ci liggéey sëñ Daaru Asan bi rawatina liggéey Cheikh Mamadou Moustapha bi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu mooy li nga xam ne mooy kàddu soññe yi ñu gëna gor gor lu wat ci kër sëñ Massamba mi ndax sëñ massa mi li nga xam mom la ko Cheikh Mamadou Moustapha daa wax sëñ Moudou Moustapha bu daa joxee ndigal mu laaje ana massa Massamba mi ñu ne ko ah essegul mu na ndiglo digloo tuuti ba mu essi ndax mom bu essee massa Massamba bu sëñ Moudou Moustapha daa wax ka daga gaa daana mo nañ fuddu mu jog ndigul sëñ bi amul xalaat nako ko bi waxe nan ko defé non ci sansi mu sotti ciolet fofu la am mourid wara nek bu bëggee jarñu aduna ak alakhirah te sëñ Daaru Asan mi ñu yaakaar nga xam ne léppam dafa sotti woon waaye bi sëñ Tuubaa dikkee doon leer goo xam ne ku ko tëppul say làmp dana fay mu topp sëñ Daaru Asan la wax ci xasida ga adaa ali xamarun laylu du junnaati fal xumdu duuna masiri mirrawunaati biddiw feq na biddiw badar weeru badar wu leer naññ woo xam ne ci lëndëm goo xam ne lëndëm gu tar képp koo xam ne xamoon foo jaar leer gi dana leeral ba nga mën a mucc ci àdduna ak àllaaxira te mooy sëñ Tuubaa mooy la waykat boo xam ne banu أقمار والأشياء أنجم وأحمدهم سمس أنا لنا توبة daan ne sëriñ ci daan ne sëriñ ci ay weer lan dafa ne banu balla ay weer lan waaye sëriñ ci ay biddiw lan waaye Ahmadou Bamba di jant leeral na waa Touba kon képp ku bëgg a mucc àdduna ak àllaaxira sëñ Touba ngay toppi moo tax sëñ dara sëñ bàyyi léppam topp sëñ Touba ba mucc àdduna ak àllaaxira mooy sëñ Touba wax na ko faalam bi anni raadin anka muttalibun an jaaka al fawdu min mawlaaka wal loolu ku fëxut woon ba gaañooy fëx liggéeyal sëriñ bi doo ko dégg muy ngërëm lu sax dak loolu la sëñ Masamba ummi xam nag ba tax mu jaay léppam jox ko sëñ Daaru Asan ba am li mu am tey la sëñ Daaru Asan am sëñ Tuubaa sëñ Masamba am na ko xoolal sëñ Tuubaa mbiri sëñ Daaru sëñ Masamba laa la bëgg a leeral tey sëñ tu sëñ Daaru Asan bi sëñ Tuubaa yeewee da koo jox ab taawam bu jigéen mooy soxna Fajja loolu day tegtale ne sëñ Touba sëñ Darou Assane doy na ko ci njabootam waaye sëñ Massamba mi bi ko sëñ Darou Assane gërëmee da koo jox doomam soxna soxna Xëri Assane loolu day tegtale na kon sëñ Assane sëñ Massamba doy na ko ci ak njabootam ndax bu ko doyu doon du ko jox te tey moo waral li lépp am tey kon ñun daal li may gàttal li ma tëjee wax ji mooy nan góorgóorluwaat ci kër sëñ Massamba mi sëñ Massamba li muy am am na ko ci lam bi sëñ Darou Assane sëñ Darou li am am na ko ci lam bi sëñ Touba mag ñi ko wuute woon fii nag sëñ daam ba fii may waxee sëñ Amadou Ndiaye maam waa ci nañ de ndax mosu ñoo toog fii di digal kenn loo xam ne bànneera bakkanama ci ne ndigal sëñ bi rek jariñu ëdd nag àllaaxira mag ñi fi nekkoon ci leen rawe ku bëgg raw da ngay topp sëñ bi waaye la daloon waaja mooy taalibe sëñ Mor Diarra ba nag bu mu ñu daal waaja daa daa daa gis xumbaayu adduna rek dajee adduna bëri rek mu xeeb sëñ Mor mu tëdd ba guddi génn gis sëñ Tuubaa toog ci bu kawe ndabi tiim ko muy tibb di joxe rek comme jox nga dem sa mbooloo sukk waa ji nee na ndab lu ma sukk rek ñu jàpp sama loxo bi daal di fël daal na jugal du fii bokkoo fii muy wër-wër ba ndab yi daj mun ne waaw te maa dem ci kii di séddale xam mu jox ma ndab mu ne Sëñ Tuubaa ne ko boo demul ci ndabul moor jaaralee xalsan ngaa fande mooy kenn ku ne fa la yàlla boole fa la Sëñ Tuubaa def sëñ mbir kon ñun ñeeka sëñ Masamba mi fii la suñuy mbir nekk adduna ak àllaaxira buñ ko xamee ak buñ ko xamul nan doon lee góorgóorluwaat ci liggéeyam sëñ Masamba mi bii bis bii nag sëriñ bi bisu ziar la boo xam ne dañuy faggu ak a ñaan mboolem ku fi indi ay ragg-ragg ak yi jafe-jafe yàlla na saafarawu ci bis bi yàlla mën na ko yàlla xéebu dara lu xat du yàlla te lii lépp yàlla képp la ay taalibe yi dajee seen addiya ñëw di ko jébbal seen sëriñ loolu yàlla lu gë lu yàlla gërëme noonu amul ci kaw suuf sëñ am satu jaxate dafa wax ne bis daa am mag ñu ko doon ziare taalibe sëñ Mbay Fallu bi ñu àggee nuyoo sëñ am leen fa leen jóge ñu ne ko kër Mbay mu ne leen acam nett leen ci xista boo xam ne xëju ci rajo yi waaye loolu leen ci tegal mooy luy leen seen tànk ñu ne ko doon doon ziyaar te yàlla tax rek mu ne de képp koo xam ne yëkkati nga sa tànk dem ziyaar ji ku baax te yàlla rek tax jéego yi may jéego di dem jéeg yooyu suuf soosu bu ñu ko tibboon sànn ko ci dëkk buy tàkk mu fay sa sans ndax yow yi kenn xamul mu toll kon tànk yi ñëwee fii yàlla doon tànk yi njëggal àdduna ak àllaaxira yàlla mën nañu ko yàlla nañu ko yàlla defal ñu ñaan nag sëñ Baara mii nga xam ne moo fi wuutu baayam sëñ Ahmadou Ndiaye Maam Bamba yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko te may ko ay ndami ndam te bu ko ñëpp ñaanee yàlla dana ko def na ko ñëpp ñaan nan wax ne sëriñ bi yàlla na fi yàgg te wér ak i rakkam ñëpp ñu yàgg fi te ànd ko wér ndax innal mutaxira fii jannaati waayun kenn xamut gën gi ñim la yëf yi nekk kon na ñëpp ñaan ñuy taxal foofu di jéggul xam naa lañ ci nag mooy dañuy wax ne soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci daayira di tu tànk yi daaw defoon nañ ko ren dañ koy defaat mooy dañuy wax ne ñoom kat seen mag ñi nga xam ñu leen jiite ci liggéey bi di ay góor ak jigéen gis nañ ci ñoom ay taxawaay yoo xam ne roy gi leen roy moo tax tey ñu mën a nekk ci liggéey bi ak yaatal gi leen yaatal moo tax ñu defoon ay neexal ngir jébbal ko ñeen ci soxna yi kon bu ko defee neexal yooyu mën naa jege si ñu jébbal ko balaa sëriñ bi jël kàddoom la ca desaat ma fàtte woon ko mooy de santaat bu baax ñi nga xam ne ñu leen tuddee majlisul usra te yor ñi nga xam ne ñoo yor liggéey kër Sëriñ Daaru Asan ci diggante daayira bi ak kilifa yi sëñ maam daam teew ak sëñ si Ousmane ak ñu mboolem ñi leen yabal ñëpp ñu ñaanal leen ñoom it yàlla leen téwér li ndax seen taxawaay rafet na lool beneen ba ca desit mooy daayira yi bokkal kasin daaru seen ñëpp teew nañ ñëpp fi mu toll nii jataay bi kenn xamul ñun ñooy kasin Masamba bi ak kër keneen ñëpp a teew gis nañ fi ñëpp asaabul jannat waa kër siñ Cheikh Fatou Sylla Ndiaye waa kër siñ Cheikh Mariam kër siñ Fall Abdou Wudoot ñëpp kër siñ Ousmane ñëpp teew nañ kër siñ Moussa Faat kër gis nañ ñëpp kër siñ Abdourahmane kër siñ Moundia Assane ñoom ñëpp rek teew nañ ngir ànd ñun liggéeyam kon sant na leen bu baax gërëm na leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم ونفعنا ببركته آمين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي في دجاء بقي تالبي بكي يغن يالي خريدي شبي ولري أمي جامي نوغ لين دي نوي شروع كيلوغي توك Cheikh Mouhamadul Amin sëriñ bi nee na nuyoo yi ak ñaan yooyu mi ngi ciy jiital kilifaam yu baax yi fi nekk tàmbalee ki saahibul fadila Cheikh Mouhamadil Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko te doole ko kàttan ba léegi bii nga xam ne yéene ne ko di ko nanoon Cheikh naa Cheikh Ahmadul Xadim moo àggalee ko fa mu ko bëgg àggalee te boo ànd ko mboolem am na ko mboolem ñu yaakaar ci Ahmadul Xadim di ko ñaan mboolem jëw yi ñu topp ci gannaawam ak fi waaye mën na ci bundi kër Sëñ Tuubaa yi di ko ñaanal jëwrinam Cheikh Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moom moo fi toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim moom it di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te tëbb ko kàttan ba liggéey bi nga xam ne yéene na ko ngir liggéeyal ko way juróomu tedd wa Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale te ànd ko mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Bassal Karim moom it muy ñaan di ko ñaan di ko ñaan mu ñaanal ay ñaanal ay jëwriñam yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw moom Cheikh Ahmadul Muxtaar ku mel ne sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mohamed moom sëriñ Mohamed Mbacke Taïf sëriñ Mbacke Soxna ak it sëñ Abdou Khadir Ndiaye mii nga xam ne tey moo fi toog toog ay sëriñ Darou Assane mboolem njabootu sëriñ Darou Assane ko topp ci gannaaw sëriñ bi nee na ñoom ñëpp mu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te wér te am kattan gu ñu mën a àggale liggéeyub sëriñ Touba te mooy liggéeyub lislaam sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi ñëpp ku fi teew ak ku teewut te amoon yenee teew nee na boobu mi ngi koy tàmbalee ci ñii fi teew ci bi. te jëmmal fii waa kër sëñ Daaru Assane mën nañ cee tudd ku mel ni sëriñ maam Daam Ndiaye moom sëriñ Cheikh Mouhamadou Ndiaye Assane moom sëriñ Mouhamadou asan moom sëñ Daaru mën nañ cee tudd ku mel ni Cheikh Ousmane Ndiaye moom sëriñ Talla Ndiaye moom sëriñ Ousmane Ndiaye moom sëñ Daaru Assane ak it jëwriñu daayira yi ràññee nañ ci ku mel ne Abdou Ndiaye doon jàmbaar ci daayira sëñ Darou Zane bi ak Makumba Ndiaye ak sëñ Aliou Sall ñoom ñi ak si léegi ak bàccitul dañuy bañ a guddal waaye ñi fi teew ñëpp xam nañ leen gis nañ leen sëriñ bi nee na ngi leen sant di la gërëm lii lépp day wane bennoog Darou Ndiaye bennoog waa kër sëñ Darou Zane lu kenn nepp ñëpp nga ci munoo xàmmee fii kër gi ak gee ak kee xam xàmmee taay kii ak kee loolu noonu la ko sëñ Darou Zane bëggee woon te noonu lay doxee moo waral jotaay bii ni ko Xaadim waxee léegi. bunti kër sëñ Daaru Asan yëpp seeni kilifa teew nañ njiiti daayira teew nañ ànd ak waa daayira kon loolu day firndeel rek bennoo waa kër sëñ Daaru Asan kon loolu yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla nañ ci yàgg am yi mi ngi sant mbooloo mi yëpp ci teewaay bii ngeen teew ci kanamam waaye di ñaanal kilifaam yi nga xam ne ñoo dawlu ji tàmbalee ci borom pàkk bii nga xam ne moo liggéey liggéey bi di sëñ ma sàmboom bi yàlla na ko yàlla fayal ak way doomam yi nga xam ne ñoo ko wutu gannaawam tàmbaleeku ko sëñ daam xari asan sëñ daam xari mi nga xam ne moo ko njëkk a wutu sëñ ablaye xari ma ca topp sëñ mbay xari ma ca topp sëñ ibrahima mbeen mi ci topp te yéen ñëpp ngeen xamoon ko ngeen gën koo miin sëñ ahmadou njaay maam bamba mii fi jóge barki démb nag ci moom nga xam ne moo desoon ci njaboot sëñ sàmm ma semb um yi ci jigéen ñi ci góor ñi waaye di siyaare sunu bajjan yi fi nekk tàmbalee ki soxna Daba Njaay Mbàkke ak soxna Daba Njaay Touba nga xam ne ñooy kilifa ak sëriñ bi toog ñoom ñoo fay takk ndiral sëriñ Massamba mi ñoom la ñuy xoole sëriñ Massamba mi yàlla na sunu borom yàggal leen fi bàyyi leen sunu kanam ba ci kanam bi kanam ñu ñu xam ne sëriñ bi toog seen jëwriñ rek da leen a tàggul da leen a tawul liggéeyu seen baay bi nekk seen jëwriñ ci kanam rek waaye ñoom ñooy lépp tey jii bu fekkonte ni jigéen mën naa toog fii mu toog mu toog fii mu toog ñu doon doxalanteeg nañ doon doxaleen bu njëkk ne ak ñoom waaye nag fii mu toog yéen la fi toogal kon loolu ñoom nañ ko xam kon sëriñ bi nee na ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sunu kilifa yooyu daw wax naa ko la tàmbali sëñ Masamba ak njabootam ba ci sëñ Ahmadou Ndiaye mii mu jawacc nga xam ne moom mujj gi mujj ci njaboot sëñ Masamba mi gi daa tax kii man ci ndax ku xam sëñ Ahmad xam ne moom léppam sëriñ bi la woon lii mbir yi wax naan tàmbalee sëriñ bi yem sëriñ mooy sëñ Ahmad kooku ba nga xàmmee ndeyjoor ak càmmoñ lañ la jébbaloon sëriñ bi bi nga tekkee seg dara mooy keroog bi nga ko kon kooku ak dundam lépp jox na ko sëriñ bàyyiwu ci dara kon kooku ba muy fàggu yaakaar naa fàggulu rek nga jëmi boppam waaye doon fàggul képp ku yaakaar suñu ma sàmp te yaakaar naa ñëpp xaj nañ ci biir te am nay firnde ay ndax liggéeyal na sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba mu gërëm ko mu liggéeyal sëñ Mbacke Soxna Lo ba mu gërëm ko mu liggéeyal sëñ Moussa mii nga xam ne moo fi nekk ba mu gërëm ko keroog day bi ñu koy waxee ne wàccug sëñ Ahmad ma ànd ak sëñ Bass mii moom sëñ Moussa fekk fii ci kër Sidi Sidi Fall muy kër gu mag bu ñu àggee ci moom day bañ ko waxee mbir mi ba noppi daanaka cey sëñ Ahmad la ma bëggoon de am na ko loolu rek la bëggoon daanaka gees jëwriñ jëwriñ yi nga xam ne mooy jëwriñ ndongo yi Moustapha Jàng ne moom ndax am na lu bàttale woon suñ Moussa Dieng na ko waaw moom de waxoon na ne bu fi jógee rek nañ ko yóbbu Taïf mu ne ko nañ ma ko yóbbul Taïf ca barab ba su ma julee tàkkusaan danaa ñëw taxaw ko waaye moom daal la mu bëggoon am na ko te nag loolu taalibe bu nay wut sëñ Tuubaa loolu wax am murit fu mën a nekk ngërëmal yàlla rek isil muridi laa yuridu abada ghayra rahmani haysu xasada ak murit fu mën a nekk ci kaw suuf ak lu mën a yëngu ak lu mën a wut ngërëmal yàlla rek lay wut te am na ko kon nag kooku yàlla na ko yàlla fayal yàgg na liggéeyam boobu ñëpp xaj na ci kon bu loolu jàllee sëriñ bi nee mi ngi leen di nuyu nuyu ba gën a jot kenn ku ne nuyu ba yàlloo jëmmam di leen ñaanal di ñaanal njaboot gi di sant mboolem yi taalibe yi fi teew ñenn ñi di féete ko ay wayjur ñenn ji ay magam ñëpp gis na leen xam na leen ndax lii ngeen wax ci sëñ Massa Mbow mi rek moo lebaloon ko sëñ daaru sëñ daaru du koo fay sëñ ma Mbow mi ay taalibeem ay doomi baayam ñoo topp ci gannaaw ñoo ne fii tey ba ci ëtt bi fii barab bi ñu fi nekk am na ci ñooñu ay bàyyi lañ ci nun am na ñooñu ay mag lañ ci nun te xooluñu loolu na sëñ ma sàmm mi lobal suñu dara loolu lañ kon loolu sëñ bi nee ne mi ngi sant magi taali bi toog fii ñépp nga xam ne dañoo seen baay seen maame ñoo àndoon sëñ ma sàmm mi di ko topp calal gi di xeeñtu mboor bi ba tey ak si jëmmam ci tey nag yàlla dogal moom mii mun a fi yàlla mi nga xam ne mooy faalun li maa yurid yafalu maa yaxtaar wa yafalu maa yashaa moo dogal tey barab bii mu toog fi nekkul lum seen woon mbaa lum doonu mbaa bëggoon yàlla muy dogal moo dogal tey mu toog fii wóotu fi maam yu tedd ja waaye wóotu fi way juróom yooyee nga xam ne ñoo tooge woon barab bii loolu dogalu sunu boroom la waaye yàlla miy dogal ku mu teñ dan ku mu ku mu ku mu yan dan la teñal yàlla na ko yàlla teñal moom day li ñuy wax ci moom mooy jaara lañ ko fi ñuy jaaree doomi soxna yi jàngal nañ ko yar nañ ko jaar nañ ko it fi jaaree doomi taalibe tërbiya na man mii maa ngi moom ak sëñ bés lañ bokkee woon joxandoo ci daara ñu tax suñu de tërbiya kon doomi soxna la jàng na waaye doomi taalibe yar nañ ko kon nag yaakaar naa ne bu yan ak see ci moom am nañ yaakaar ci moom ndax kat la sëñ Cheikh Mbacke waxoon rek alal alal mu xàllafi ani suuna asaara saraf alal mu xal xàllafi ani suuna asaara saraf waaw képp koo nga xam ne wutu nga daal la nga xam ne mooy sa warugar yi nga sa warugar mooy nga ñoŋal dégg nga doonal ña nga wutu ñoom nag moom nag yi ma wutu doonuñu ay dërëm wala ay alal wala dara waaye ñu ngi doon diine ak ngoro ak bi ak defaru bokk kon nag yaakaar naa ne loole ma ngi doon dox foofu la bëgg a teg tànkam fañ ko tegee woon fa la koy teg fas yéene daal képp koo nga xam ne yow ay njabootu sëñ Masamba mi nekk ci atti bii fas naa yéene jiitu di roy fa mag ña jaaroon nu ànd jaar foofa àggale liggéey bi fa ko mag ña bëgg àggale nee loolu mi ngi ci woo ñëpp tey am nañ ci yaakaar ci moom kon nag nañ ko ñaanal bu baax bu bokk ci sët yi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa doon wax zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajtahidu ay sët yu baax yoo nga xam ne dañuy wutu maam ya ca dundal suma si yonante ba sala waye leggel serigne touba sëg yooyu moom mii yàlla na ci bokk tam ànd ko njaboot suñu sama moomu gépp tey am nañ ci yaakaar la ci topp nag mooy ñi fi toog liñ daa digle rek loolu lay digle ndax aduna dara nekk fi lu may jaamu yàlla lëggéey dundal soo ñaq fonk ndigal aduna loolu rek fi nekk li tax yàlla bindu nu andi wàcc na ci kaw suuf du dara lu muy jaamu yàlla وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بل ما تجينا نوي جام كون جام يالا مونو فيل سيدنا توبا شيخ احمد الخديم كات نينا اجينا جوغا خامني لو نيه واخ لو نيه ديف من احمد دي اومكو فوكو واي ديغين يينا نكو باي ما ديف رجاء الجنات بلا تعات بصوت الماء خرور بغا دم اجينا تنغو topp yàlla nangoo nga dundal sunu séntu saa sam nee na loolu sa bopp la kon nag rikkiwaay li nu yàlla sant te mooy nu jàmm ko nañ ci góor góorgóorlu baax sunu digg ak sunu borom lim nu sant tàmbalee ki julli juróom génnee asak aj màkka ci ku ko man yooyu yëpp muy ponki lislaam yi nañ ci farlu bu baax lu ci waaye mën na koy def tey yërëmante sunu biir tey dimbalante tey jéggalante tey bañ a tooñante sëriñ bi loolu la santaane nañ ci góor lu baax la ci topp mooy lii nga xam ni mooy ndigalul sëriñ bi moom da ko fay fekk fii kat bokk wax nañ ko ndigal mosu fee booy lépp ndigal loo nga xam ne wàcc na fi jaar ci jëmmam jii dañ leen ko jotul yéen njaboot sëñ Masamba boo ko leen ko jottee nag moom jaanam wàcc na ci la ci des nag nun noo ci des kon nag rek waay boobaa nanu takk nanu àndandoo nanu góorgóorlu ba ndigal yooyee nga xam ne bàyyikoo ne ci kilifaam ñëw ci wàcc ci moom mu joxaane ko nañ ko jëfe ne ko sëñ bi bëggee loolu sëñ bi nee na mi ngi leen jii soññi nañ ci gën a góorgóorlu nañ gën a takku nañu gën a boole xol yi nañu boole jëmm yi nañu boole lépp ànd la gil sëñ ma sàmboom sëñ bi nee na loolu mi ngi leen ci leen gërëm kon nag la ci topp mooy moom mii day wax na ne la fa mag ñi jëmatoon yi rek loolu lay feddali mag ñi dafee fekkoon rek ñuy dox ci kaw jamono dox na ba lu bari jamono andi ko te mooy lii bokk yi doon wax léegi mooy fédération Sëñ Massamba mi ndax gannaaw ñi moomoon liggéey bi dem nañu muy Sëñ Massamba ak njabootam noonu sët yi noo fi des kon nag nosuwaat àndandoowaat booloowaat di doon jénn jëmm dafa jot sëkk liñ ciy wax ne nun rakk yii tàmbalee ko ci man mii ak ñi topp ci sama gannaaw ñëpp ñu gën a féete suuf noonu amuñu réeroo noonu suñ lépp fam nañ ko jox sëñ baara lu mu ne noonu la na la lu mu ne dune kenn kuy wax lenn xaajaloo jëm fii mbaa damay jëm fii wala damay wax kenn amu ci baat bu sëñ bi ne noonu rek noonu nee nañ na la bu ne dune dune defe naa ne taalibe yi mi ñu jàpp naa ne ñoom it la ñuy def kon nañu xam ne kër gi benn baat la jenn jëwriñ la mooy sëñ baara moo yor baat li lu mu na lu mu ne dune dune ku mu a doon ak foo mën a aju ci njabootu sëñ daam la ci njabootu sëñ ablaay la njabootu sëñ bay la njabootu sëñ ibra la njabootu sëñ ahmad ko koo mën doon kilifa kër gaa ngi nii moo yar baat bi moom la ñuy déglu bu nee def leen nu def bu leen bàyyi leen nu bàyyi ko nag sañ ngaa siyaare sa sëriñ sañ ngaa siyaare ka nga xam ne mooy sa wasila waaye nag bu ndigal jógee dañ xam ne ndigal li benn kaddu la kenn ko yor moo koy joxe moom muy mi toog kon loolu na ko ñëpp dégg loolu ay rakkam nangul nañ ko te def naa taalibe yi ñëpp nangul nañ ko loolu kon nag lii nga xam ne moom la bokk yi sos muy fédération sëñ Massamba fédération Tawfekh te dara taxul ñu sos ko lu may rek bëgg a nos njaboot boole leen ci génn buum ñuy fabandoo di tegandoo loolu rek tax ñu sos bi kon loolu yi bi ne mi ngi koy feddalewaat ci jamono yi sëñ Axma nañ ko woon sëñ sëñ jamono yi sëñ Axma ko moom it noonu la koy digle waaye fépp fépp taalib nekk yaakaar ma Massamba Oumy ak ci koo mën a aju ci kër gi bànqaas boo mën a aju nañu xam ne sëñ Massamba Oumy mooy date bi mooy garab gi nga xam ne suñu ko suuxatee toppatoo ko defar ko garab gi dana së bànqaas si daañu màgg daañu meññ ku nu mën cee jariñ waaye nag suñu demee ba sàggana garab gi kenn ku ne la yor danga ko ñàkk ma ne kër sëñ ma sàmm gépp ku ci bokk ne fa bokk bànqaas waaye dë dàtt bi jëmmu jëmmu sëñ ma sàmm bi loolu nag la ñu war a suuxat loolu nag li koy suuxat mooy lii ma leen wax rek kàddu gi doon benn ñuy fabandoo tegandoo ki fi nekk sëñ ma sàmm lu mu ne na ñu ne na la lu mu ne doon dina confédération bi fu fi waaye nekk moo xam fii nga nekk ci réew mi wala nga nekk ci diaspora ak foo mën a ne ak ku mën a doon sa jëwriñ ni ma ko waxee woon léegi fédération bi na ci bokk la ñuy laaj na ko joxe fa ñuy woote na fay dem lu la sant na ko def loolu mooy ndigalu sëriñ bi sëriñ bi nee na fédération sëriñ Massamba Ngom bii ku nekk fii ci réew mi wala nga rekk bitim réew ci diaspora bi foo mën a nekk ab daayira am na fa del dem ci daayira yi lañuy laaj na koy joxe. lañ la sant nanga ko def fuñ la won nga fa wujj waaye kat ci njabootu suñu Masamba mi laa bokk te lu ñuy laajal sëriñ bi wala lu ñu koy defal nga feste say loxo ne ca gannaaw naan sama sëriñ laay déglu sama sëriñ laay xool te kër gi doon benn kaddu kii yor kaddu gi loolu caaxaan la bàyyi leen sëriñ si ngeen di leen di leen dóoral ak a tappale kàddu gi benn la foofu waaye mën a nekk teñ ne sëñ bi nee na njabootu suñu Masamba bi kàddu gi benn la sëriñ bi baaram baaram moo yor kaddu gi kon nag nañu gën a góorgóorlu gën a takku ci fédération bii ndax moo yor kër gi fédération bu doxee lépp dox la ci topp mooy daayira sëñ Darou Assane ahibaay yi Cheikh Al Hassane bokk yi wax nañ ko diggante sëñ Samba mi ak sëñ Darou Assane kenn naa tableetu ko xam ne sinu diggante muy diggante bu rafet mu yàgg lool ci sëñ Samba Oumy ba ci njaboot gi tey loola dox ci kilifa yi dox ci njaboot gi kon daayira sëñ Darou bii kenn wëloon cee man kon njaboot bi fu ñuy liggéeyal sëñ Darou Assane kenn warul leen faa jiitu kenn waru leen faa jëkk kenn waru leen faa jëkk kenn leen waru faa mujj kenn waru leen faa man kon liggéey sëñ Darou bi nañ jàpp bu baax loolu nag li tax mu dox mooy fédération bi dox rek la ci topp mooy Ahibaahil Xadim bi nga xam ne Cheikh Mouhamad Moustapha Karim sëriñam di kilifaam di lépp moo ko santaane sëñ Ahmadou Yaay maam ma soññee na ko soññeewaat ko te yi day béy day continuer képp koo nga xam ne fii nga yaakaar Ahibaahil Xasan na ngay dagg carte te lañuy ñuy teg nga di ko teg te fu ñuy woote na nga fa wujji sëriñ bi waxoon tegaloon na ko boppam waxoon na ne sëriñ bi waxoon na ne màggal ku njëkk gàmmu ak congrès mooy foo nga xam ne fédération bi moo woote ku fay dem na nga sol lu weex tàll ak koloog baxa dem wujji loolu mooy tëri bi nga xam ne boo demee wane na ne njabootu sëñ Moustapha ay Baye Xadir ñëpp a ngi nii ku delluwaat sa kër nag nga sol sa tëni te moom laay la ko tuddee mooy la nga la xam mooy sa sa kër mooy laay wa nga sol waaye màggal bu njëkk kenn ku ne moo xam da ngay dem ca penc ma di ko fa def wala da nga sa kër na nga jël tëni bu weex bi bu mu weex mi ak kol dee dem gàmmu bu weex ak kol gi kongare mu weex ko defee loolu nag boo ko defee li sëñ bi digal def nga ko la ci topp mooy. yéen yi nga xam ne yéenay jiite daayira bii muy tawféex te ñu boole leen ci section Taïf la leen section ba di teg nga xam ne daa jëm foofa sëriñ bi nee na loolu na ngeen ko warloo bu dee lu ñuy laaj na ngeen ko joxe bu dee dañoo jox soxla yu membre na ngeen ci dem loolu kat mooy ndigal li kon nag nañu fonk fédération ma Massamba moo jiitu ndax bu doxul dara dox na nañu fonk daayira sëñ Daaru Asan bii ndax dëggante sëñ Daaru Asan ak sëñ Massamba ñëpp xam nañ waaye it ndigal lii nga xam ne suñu Moustapha moo ko jox nañ ko fonk kër sëñ bi nee na yett ndigal yooyu ak leneen ndigal loo nga xam ne nag jóge na ci kilifaam moo xam dafa jóge ci sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Daaru Asan wala mu jóge ci sëñ Moustapha nga xam ne mooy kilifaam lu mu ci man doon bu ñëwee dina ko wàccee ci njaboot gi bu dee lu ñuy laajee kenn ku ne la nga ci war a joxe dan la ko wax bu dee lu ñuy liggéeyloo kenn ku ci la nga ko war a doon ko jox dan la ko dan la ko wax kon nag ñu ñëpp nañu commencé góorgóorlu te takku te xam ne sëñ Mademba Sylla daal am na lu mu daa wax diw daal maam laa àndaloon baayam laa àndaloon kon nag man fi ne toqi naa ma ko murit laa man man duutuma damay toog rek ndax diw baayam laa ma nee na loolu gémmiñ la gémmiñ la ci ma ko murit ndax nee na liggéey sëñ mi ngi mel ne jaamu yàlla du wàcc kenn fekk tugal def lu ñu ci ko suba mel waa bu rabbaka hatta yaatikal yaqin alxuraan wax jaamul sa borom ba yàqin yàqin nag mooy faatu kenn du am yàqin te faatu te sëñ Ahmadou Ndiaye maam Bamba jox na ci misaal kooku sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ma lañ ko joxoon 1952 mu jóge mu liggéey sëñ Mbacke Soxna Lo mu jóge mu ba ci sëñ Moussa Mouhamed ni kooku joxe na ci joxoñ sëñ Modou Bassiré nee na am murit feeg mi ngi àttan mbuusug janax war nañu liggéey sëñ Tuubaa waaye nag diw daal man maamam laa àndaloon baayam laa àndaloon ñooñu nekkatu fa léegi man mago murit laa nu ma neex laay dox neen loolu gémiñ la nde am nag mag mi màggat moom la liggéey sëñ Tuubaa wàccul gone waxaaliwu ma ko kon ñun ñëpp nañ maase ne nañ maase xam ne liggéey sëñ Tuubaa da nga fi nekk Gol bokk wax nañ kenn ku fa nga nekk fa nga nekk kër ga nga nekk sa jëwrin mooy sam sëñ tuba ndax moo lay soñ fekkee ban ngaa dox lam lay digal dong ko def lam lay tere nang ko bàyyi lam lay laaj dang ko joxe waaye nag ku fi romb buntu ba nga duggee di wër beneen bunt soo duggul yaa ko yaa ko teg sa bopp kon sëñ bi ne ne mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp guddal li ma ta wax lépp bokk wax nañ ko waaleykum salaam wa rahmatullah amin amin ya rabbi